laaj ëllëg mu ne man de di ma jaaxal wayu ba jiloo ax ni yaawu ñi ngi màggal daal ñi nga xam ne ñoom la yàlla jox koom-koom ñoom rek la ñu jiital faale ñi nga xam ne yu xaar yi boo na ayimantu ridwaan yi ñi ngi xeex nag ñi nga xam ne yàlla gërëm na leen jamono bi nag ñu toll ni xeex bi dafa war a dem ci kanam dañ ñëpp takku doomu soxla yi amul Touba amul Tivaouane amul Ndiassane amul Nayeen amul mboolem doomu soxla yi ñëpp jóg xam na xeex bi euh, euh, dafay doog di tàmbali nag bi nga xamee ne ñu ngi bëgg a ñàkkal fayda kilifa yu tedd yi kilifa yi nga xam ne bu taxaw doon ñoom àdduna bu nekk ndax law laahu maa xalaqa law shay'an bu taxaw doon jëm Muhammad yàlla du fi amal dara. mais ci jëmm Seydina Muhammad lu am ca la amee ci jëmm Seydina Muhammad ca la yàlla di génne yàlla yii nga xam ne tey ñoo leeral adduna bi Seydina Cheikh Ahmadu Tijaani radiyallahu taala anhu li nga xam ne moom waxoon na ne kukku yii ñoom de seen jamono euh, te la yàlla dafa leen lépp lu yàq moom nga xam ne moo leeral adduna bi yëpp euh, ak yu waa këram maanaam su xobal pour yu rajo law daal àndu euh, waa suñu waa kër Cheikh Seydil Hadji Malick radiyallahu taala anhu nekk na loo xam ne waxuma sax ñii marche ah, waaye état bi moo war a jàpp ñëwal loolu tëj ci kaso bi ba keroog ñu leen àcc ndax fitna gi nga xam ne moom la ñu bëgg a indi ci Sénégal te itam ñoom dañuy wax mag ñooñu dañuy wedd yàlla dañuy dee ci kéeféer waaye ci li ñu gëm te xam ko mooy ñoo wedd yàlla. partage des responsabilités. Nous aussi, nous avons nos moyens de prendre nos responsabilités. Parce que jamais dans les écrits de Serigne Touba, on n'a jamais vu quelque part où Serigne Touba a écrit des insultes. Jamais dans la vie. Et même que Seydi Hadji Malick, Mame Khalifa Niass, etc., etc., Mame Seyna Limamou. Alors, pourquoi ces gens-là qui étaient en Arabie Saoudite et dans le golfe qui ont appris l'arabe comme nous, nous, on a arabe maintenant s'il veut un su fekkee nag dañoo bëgg a salfaañe sax kenn ci ñoom koo xam ne kii bind na benn téere boo xam na mais téere bi boo ko ba xool ko ay wax yu ñaaw rek nga nag bu tey dootul bind ci téere fekkee nag par exemple ñoom jàmm jooju il faut ñu jéem a jaar ci ay la réalité. wallahi di ngeen dajeeg mbugalu ngi ñaan réew mi président de la république ak gouvernement ak yi nga xamante ne bi ay kilifa lañ ci réew mi ñu jóg taxaw tax ak député yi nga xam ne ñun ñoo leen fal yóbbu leen assemblée nationale ngeen voté loi boo xam ne képp ku jógati wax benn kàddu ci ñaaw ci magi diine yi Sénégal ñu jàppale teg la ci yoon duma la teg nga xamante ne moom nga yelloo parce que nag Sénégal kenn warul saaga mag ñi mag ñi ay saalixiina lañ mag ñi ay ay nit lañ yoo xam dañoo jël seen àddina jaay ko jëndee ko yàlla jox ko ngir yàlla teral Sénégal kon Sénégal dañu am pour delloo leen jukkal mais amuñu pour leen saaga metti nañu ba ci suñu biir xol metti na xalifay général yëpp xalif général des Layène nee na lii metti na ko lool xalif général du Touba metti na ko bu Tiwaawan bu Njaasaan bu Canaba amul benn xalifa bu nekk ci Sénégal boo xam ne kàddu ñaaw yi dégg nga ko te jooyuloo ñun ñi fi taxaw ñëpp di ay yi soxna kenn ku ci ne billaahi sa xol xor boo ko xoolee yaa ngi jooy ci sa biir xol ngir lu ñaaw li nga dégg ñu di ko wax jëmee ci ñoo xam ne ñooy warasatul anbiya yi ñoo wutu yoon ci yàlla Muhammad fii ci kaw suuf ñoo liggéey réew mi ba réew mi lëndëmee gisuñu woon kenn ñoom rek lañu gisoon seeni ñaan moo tax ba réew mi nekk réewu dëkk nekk réewum jullit kon yen taalibe yi yéen soppe yi yen sénégalais yi yéen gouvernement Sénégal ñun njabootu ahlu tasawuf ñu leen di woo ngeen jóg taxaw nag wallahi te bu ngeen taxawul bés bu ñu jógee bés bu ñu jógee bés bu ñu jógee réew mi dinañ xam ne doomi soxna yi jóg ndax nag am nañ kattan am nañ xam-xam bi am nañ mën-mën bi am nañ pas-pas bi te ku jaaxle ci ñun nga jëm ku bëgg réew mi ci ñun ngay ñëw lu waay bëgg rek ci ahlu tasawuf ngay def dañ ñaanal nag ba bari ngeen bëgg nag di seetaan ay samba boy di dal suñu kaw yi kilifa loolu duñ ko nangu tey duñ ko nangu ëllëg wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh